neexati te amati solo su <laughs> ko tey école des jeunes mariés dañuy waxtaanee góor ñi nga xam ne dañuy takk soxna ngir mere seen aawo maanaam am problème ak sa aaw bam la jaral poussé la nga takk keneen maanaam ñaareel maanaam xaw ma lu ñu koy waxee ci olof takk faj mer dañ dem seetaan élément bi te ñëwaat su ka parce que dama jàpp ne sa soxna lu la mën di def da nga koo war a mën a baal mais pas nga koy wutal wujj ngir faj mer li may mooy que jigéen ñooy baax lépp baax. parents yi ñoo jàngalul seen xale yi l'islam kon maa ngi jigal képp kuy sëy muy góor muy jigéen nañu ko def te yàlla tax. jigéen ñi nag nañu góorgóorlu sëy de su ko caaxaane. man damay jàpp ni rek xëy na waxtaan amagul ci. Euh, diggante jëkkër ak jabar. jigéen mën na comprendre jëkkëram comme jëkkëram mën na comprendre jabaram. mettiwul sëy jigéen boo gis mën na neexal sëyam. mais sëy aussi tamit warul am na boo. ndax mariage du koy téye mooy respect ak dëgg bi. c'est injuste bu nekkoon mère moo tax ngay takk ñaareel. ça c'est très injuste. parce que dans le mariage on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. donc bul tax nga xamuloo noo koy def xamuloo loo noo comment épouser une deuxième nga profiter bi jabar bi mere la tooñ la nga mere ko dem takkal ko deuxième cest yow amoon nga ci bopp bi. ça vraiment c'est un peu vraiment c'est c'est c'est de vue là macha allah su ñoo ko déggandoo mu nekk kàddu yi nga xam ne askan wi yëkkati nañ ko ci thème bi ndax nag tem bi yaata na yaataawa boo xam ne ku ne mën na cee wax ba tax na nag li ma ciy wax rek su kaay mooy takk faj meer képp ku koy def dama naan dangaa waye di rek bala ko moom mi nga xam ne rek moo di soñ bu Diop soñ bu laay maxtaar laay Seydina laay Issa pneu waaw <laughs> kay laay laay laay maxtaar bàyyi laay amul maas xam nga man démb ak tey maa ngi dund bés bi macha allah euh, ndax xam nga seen xam nga seen alimaam mhm. waxoon naa ko fii daa bokk ci samay soppe waaw Seydina Limaam def naa taalif ci moom mhm. euh, daa bokk ci ñi may gént waaw yàlla na ko yàlla euh, waaw Seydina Limaam ak Soxna Jaara ah, waaw Seydina Limaam ak Soxna Jaara ñooñu li ma leen gént dafa bari yàlla na yàlla def ah yëmbal waaw yëmbal waaw yàgg naa fa nag yëmbal waaw kon ci kanam tuuti ñu ñëw comme man pneu secours la ñu ñëw ci kanam tuuti incha allah. Ah, euh, ko bàyyi ma daal di yeggaliwaat su kaa mbay man dama naan. Mm-hmm. góor gi nga xam ne dafa mere soxnaam ba mu ko mm-hmm. jara mu dem takk ñaareel. Mm-hmm. kooku dafa naan est-ce que pertul. parce que boo amee xel di xalaat waroo mere sa jabar yenn mere ba mu la jaral ngay dem di takk ñaareel te tamit. sëy dafa nekk loo xam ne euh, du tey wala du suba wala gannaaw suba. Mm-hmm. c'est c'est àdduna la daal maanaam sa dund gi yëpp. dafa yàgg dafa yàgg du lu gàtt loo xam ne bu la neexee takk tey bu la neexee fasa tey parce que ay mère waru tax nga dugg ci sëy goo xamul. Mm-hmm. di di yàkkamti ba jaral la nga dem dugg ci loo xam ne amaana sax la nga doon bañ ci aaw bi mën nga koo fekk ci ñaareel wala nga fekk ci lu gën a bon. Mm-hmm. pour man daal euh, bépp góor boo xam ne yaa ngi koy def man dama naan euh, jaru ko. te tamit euh, Souka Mbaye des fois man damay doxo joxoñ baaraam jeeg ji parce que mënuma comprendre ngay xuloo sa jëkkër yenn xuloo yi yu yi ba mu koy jaral muy takk beneen soxna kon xam nga ne kooku Souka am na lu ko métti même bu nekkee nekkul ci dëgg wala nekku ci yoon yow jéeg bi am na loo xam ne def nga ko lu métti loo xam ne sa jëkkër te jeeg bu nekk war na war na war na bañ takkal boppam wujju parce que loolu mooy yow yaa takkal sa bopp wujju mhm. suka Mbaye bu fekkee yaa ngi may sa jëkkër jàmm mhm. yaa ngi ànd moom ci li diine wax yaa ngi def ak moom lépp loo xam ne war na la sa digganteeg moom tey bu takkee ñaareel mën nañu au moins peut-être dafa am envie takk mais bu fekkee bu ngeen xuloowee nga tere ko boppam doo ko fóotal togg ba sax boo koy jox danga koy jalax kooku bu takkee ñaareel te yow yaa tooñ sa bopp parce que yaa ko poussé mu takk ñaareel dama lay wax benn anecdote boo xam ne li muy wax nii euh, suñ benn dëkkandoo moo ko dund moom kooku tey moom xam na ne xel ne moom moo tax ñaar euh, ja jëkkëram takk ñaareel parce que jëkkër ji euh, daf doon def benn formation militaire la léegi ci kaw formation benn guddi mu branlé amul permission de mu branle bi mu branlee amul crédit bu mu woowee jabar jabar ji mu ne xaaral ma dem fanaani sama kër jabar mais bi muy dem wootegut parce que crédit am dafa jeex mu dem jënd di bu mot sëkk nag pour rien pour def plaisir jabaram dafa ko surprise bi mu demee fëgg xam nga euh, guddi am ne boo ne jigéen la fëggee doo ñemee ubbi mu fëgg insisté soxna si ne ko koo kan la mu ne ko man la diw après bi mu ubbee mais daf ko doon def pour plaisir mais problème la si jëlee parce que jabar ji mu ngi mu ngi mer di xuloo moom ci kër gi naa ko waa bi nga xamee wóoluwoo ma loo may takkee parce que heure yi nga ñëw nii saa nga wax munoo mun waaw peut parce que parce que parce que li jëkkër ji def noonu da koo déranger mun a jëkkër ji wóolu ko waaw ah, li tax mu def loolu da koo metti xuloog jëkkër ji su kaa mbay laa lay tegal nii ba la lendemain waxut ak jëkkër ji te jëkkër ji ndeysaan boo gisee sax mu nekk ci formation branle dem seeti jabar parce que dafa namm jabaram am na envie am guddi gu neex mu ñëw mu tere mu teeroo ko noonu ah, jëkkër ji am xol boo xam ne ah, ci guddi gi maanaam am na ñenn góor ñoo xam ne duñ neexal jigéen de wanal boo boo la wanee ginnaaw ñu wan la ndong ñu la neexal jëkkër ji nag genre yoogu genre googu la parce que bi mu ñee gis jabar ji ni mu comporté woo moom tamit xelam teey li yàllay def rek ci suba si bi muy xëy di ñibbi oto bi mu jël tajafa ak benn ndaw as as jig as jongoma ju ju mel ni taar macha allah jongoma joj tey moo yor sëy bi te bi muy ñibbi bi mu xuloo jëkk jabar ji suba si ba mere jabar ji xëy moo ko may courage doxaan gel bi bi mu doxaanee gel yàlla def euh, mu sëy ak ndaw soos tey kooku moo nekk ñaareel ba aaw ba dem tey ndaw soos moo yor jabar bi man dama naan des fois yenn yi boo koy def dangay ngay manquel sa bopp da ngay pertal sa bopp parce que man du ma sama tool du ma béy sama tool ba mu des góob may ñibbi di fa bàyyi keneen ci loo xam ne amaana sax mun nañ ne yow yaa tooñ parce que ki nga xam ne dafa def juste mais jëkk am na am na góor yoo xam bu la parce que ñoo moom seen kër mais waroo jël loolu di ko di ko def benn problème bu rëy boo xam ba ma tere euh, jox sa bopp jëkkër sa bopp sa jëkkër guddi gi ngay amamu yenn histoire yoo xam ne day métti ci xol ci góor am na yoo xam ne ñoom ñooy tooñ góor waaw mais mhm. moo tax nga euh, indi kàddu mhm. takk jabar faj mer mhm. lu tax nga utiliser baat boobu ndax ku góor ki buy takkaat mooy victime fii quoi. ah waaw mooy waaw mooy victime waaw dañ ko dañ ko jëlee ci sensu dafa mer takk lu tax ñu jëlee ko ci dafa mer takk sama benn mag maa ngi koy nuyu maam Góor Diop ci Touba dafa may faral di wax euh, wax ci affaire yu ñaari jabar kaf la ko jëlee nag xam naa ñàkku la mandu di ko noonu <laughs> mu ne ma ñaari jabar ku leen yor amul ay jéng ak yooyu ku gën ci yow nga gën ci moom waa léegi ki takk jabaram mhm. nekk ci kër gi bari yu mu soxla ba pare mhm. nag avant dara yàlla autorisé ko mu am quatre femmes mhm. yàlla ne ko nag bu fekkee doo ab bokkat bokkoo ci bokkat yi takkal quatre femmes soo ko mënul ci benn waa léegi ki ne ci këram di joxe dépense am ne ci këram jabaram leew ko mu moom kàddoom war di def lu dindi ndaw si war a mel ni ab bouton ci moom lu ñu ko wax mais léegi su demee ba amul satisfaction boobu léegi lu tax yéen jigéen ñi ngeen di utiliser baatu jabaru faj mer parce que dafa am te bari na góor yi dund lu metti seen biir néegu sëy te duñ ma a fase ndaw si dañ ko fay bàyyi léegi kooku bu takkee ñu ne ndaw si da koo déggalul parce que dafay faj mer mhm. fekk kooku dafa am lu ko mag ñi dee peut-être am na ñoo xam dañu fase jigéen ba àddunay tukki mhm. lu ñu am lu leen metti metti seen biir dañ koy gérer mhm. mais su takkee du ñu xalaat ni yàllaa ni ko takkal ñaar ñett ñeent su dee mën nga ko. Mm-hmm. dañ naan dafa def jabaru faj mer. Mm-hmm. est-ce que noonu la am son yu bu dafa mel da ngaa comprendre sujet bi. ñuy wax. waaw waxuñ ki nga xam ne dafa am envie takk jabar. parce que mais man tuddee ma ko faj mer. ah mu du faj mer bàyyi leen ñaari bàyyi ñaari émission yi. Mm. du jabaru faj mer. <laughs> si jabar faj mer la déedéet du faj mer si si si. du faj mer tey jabaru faj mer la ñuy wax. du faj mer mais pourtant du faj mer parce que faj mer dafa am. déedéet lekk la mooy mer fii wax nañ fi xam ñaareel. parce que ah, lii aawa munut laa. waaw mais bu ko neexee xam nga ko neexee xam nga tax bu ko neexee. léegi man li ma merloo sama kër. Mm-hmm. day waral doom sosu ci bu fekkee ànd am na ci. Mm-hmm. yéen a ma gën a xam ni sëy bu doom sosu te ñaari xol dañoo mer. Mm-hmm. gis nga liñ ci wax doom yi souvent li ñu wax noonu la ñuy mel. waaye léegi bu fekkee damaa mer ci sama jabar su ma bëggee faj sama mer mooy su fekkee sama plaisir wala xëy na sama sama ngor sama bakkan laay mhm. du ma takk jabar lu tax ngeen tuddee ko jabaru faj mer. du question yu tuddee jabaru faj mer hmm. am na thème bi di wax. mais du jabaru faj parce que dafa am. du faj mer dama ni loolu. déglu ma rek déglu ma. war tee la ci góor ki boo amul lu la neex ci sa jabar. ça existe ñoo xam ne dañuy takk jabar te du faj mer Omar am na wala amul. am nga xam ne dañuy takk jabar juste parce que. mais boo problème ak seen jabar. waaw boo meree déglu ma déglu ma non non moom xam na li may wax de. xaaral moo tax maa ngi lay fekk si wuyu ma ku góor ki bu meree mm-hmm. bu meree bu dee ndaw si dafa am lu mu koy def ci kër gi mhm. na faj mer mi na takki jabar mhm. su ko deful dem njaaloo ji wala mu def fi nag su noonu mhm. na faj meram muy maj su ma takkee keneen am bànneex sama xol sedd ma takk keneen ma ne fii bàyyi benn jigéen mu may léegi fekk si ma souffrir damay dem léegi fekk si ma si thème bi comme nee nga faj faj sama yar waaw moom laa la moom dafa wax léegi nee na boo sa jabar toroxale yenn yi nga faj sa mer dem takk ñaar léegi fekk si xam naa li nga wax mais dama ni dañ koo tuddee faj mer mais yow nit ki dafa def li ko war ngeen ni day faj mer. mais jabaru faj mer dama la ne di nga diri jabaru faj mer xam fa la doon dugg. Mhm. waaw peut être jeexalu ko sa introduction. Mhm. mi ngi doon dugg ci nit ki seeg jigéen man foofu laa ko doon ëpp li may déggee. ba mhm. jigéen ji xëy euh, tas wala mu fay. exactement léegi ñu ne nopp na jabaram. léegi. dem takki beneen jigéen ci moment bi kee fay. wala moment bee xam ne kee dafa tas. mu jël benn jigéen teg ko foofu. du nobel la duggee ci moom mais day wan kële yow mi kat dem nga. Mhm. Euh, maanaam bato dem bato Cossé. Mhm. maanaam kooku defu ko par amu defu ko. waaw boo ko léegi man li ma expliqué kon jabar faj mer. boo jëlee li mu expliqué mhm. jabaru faj mer la. dëgg la parce que bu fekkoon ne waa ji guddeem. mais baax na ma bu doon waa ji guddeem neex baax na. bu doon waa ji guddeem neex na. Ah. ñëw na tegu ci yoon. soxna si tegu ci yoon. Mm. amul benn problème. waaw bu xëyee du takkaat. kon fekk si gama. waaw moo tax ma ne li mu wax moom d'accord naa ak moom jabaru fekk mer lay wax. waaye baax na yow mii yaa ko fekk si. waaw dama ne baax na kay man d'accord naa ci dama man man damaa d'accord moom li mu wax jabaru fekk mer la wax. man d'accord naa ci de. mais moom daf na lu tax ñu tuddee ko ko mais dama leen la thème bi tey du question de ay bëgg tuddee. moom tam angle la moo ma jaaxal tey jamono taxawee mooy. yow angle bi bi nga ñëw ba noppi coow nga fi. waaw waaw non damaa ñëw ci ñaar damaa ñëw ci ñaar yu ngeen comprendre dama ni ko li ñu bëgg a tuddee faj mer des fois man du ma ko tuddee faj mer nit ki day def war téefam muy benn ngir sàmm ngorom ak bakkanam mm-hmm. Mm-hmm. ñaareel bi mooy man d'accord na uh-huh. jabaru faj mer muy ku ñuy torturer ci sa biir kër mm-hmm. nga dem wuti keneen demal wuti keneen waaw dëgg la non li torture kii dafa ñëw sooy bu daal yow mais jabar ji jëf jar naa takki keneen ndaw si doxalee neneen man ma kaay wax la non xam nga c'est-à-dire sooy sa thème mu dëpp thème bi parce que ndaw si question yi posé waa ji jigéen du ko posé jëkkëram question yi posé waa ji ndaw si dafa pose benn question boo xam ni di partico euh, man ci sama dégg-dégg hmm. le fait que jëkkër ji ñëw parce que ku ne am na parce que tamit mën na jàpp ni est-ce que nekkul ni da nga mu wóoluwut. Mm-hmm. d'accord naa mu poser question ba parce que am na ñoo xam ne dinañ ko def jekki-jekki yoot ñëwaat dégg pour xool ndax dañ koo déggal dara wala dara wala illaa da ngaa dégg waxu nit ñeeg et cetera ah, non mën na bañ a nekk loolu sax yaa ngi dégg non non non mën na bañ a nekk ah, yooyu mais nag dafa am fu mu war a wàcce man li li tax mu exagéré le fet que mbir moomu bu la sa jëkkër expliqué tamit bu la sa jëkkër expliqué da nga war a comprendre waaw amul temps sax pour dem sa jabar mais dafa branlé. waaw daf ko jaral bu la sa jëkkër bu la sa jëkkër expliqué non non bu la sa jëkkër expliqué da nga war a da nga war a nangu dégg tamit explication yi mu la expliqué parce que expliqué na ko mais mu xañ ko boppam. jàpp njàmburam guddi gi waroon a neex mu yàq ko. Mm-hmm. bët set waa ji ñoom génn di faj mer. donc jabaru faj mer moom baaxut parce que balaa ngay dugg ci kenn tamit da nga ko war a càmbar yaa ngi dégg da nga ko war a càmbar parensaay nag li kiy wax ni exception la ay mën na mën nga jaar ci keneen mbëggeel juddu fa ngeen bëggante soppante continuer mm-hmm. mais nag mënoon na dugg ci koo xam ni tamit kooku mën naa am sax ma ngay riita mbale di def lu ne mm-hmm. donc te bu boobaa musiba day am mm-hmm. mën naa moom it loolu mën na ko indiwaatal mu tàggawaat ak keneen ñu tuddee ko góor gu sikk naan du yàgg ak jabar parce que parrainage tamit góor yi mën nañoo def ba yàq tamit seen réputation am na ñoo xam ne eh. kenn du leen may jabar parce que dañ naan kii du ñu góor guy téye jabar donc loolu tamit góor parfois daf ko war a sàmm mm. ba tax ah, booy dugg ci dara nga waajal góor yi tamit daanañ ko faral di gis ndaw si nekk ci koñ bi nekk jëkkër ji euh, ba yàgg ndaw si tappaas tas dem léegi waa ji pour bëgg koo xamal ko ni ko faalewuma la faalewuma la ak mën naa am ku la dàq mhm. mu dem fekk benn xale bu jigéen boo xam ne xoolul jikkoom xoolul juddoom xoolul meloom rafet na mel ni didi rek mhm. mu ñëw ni ko coppet takk ko pour faj mhm. mer kanika bàyyi nga ma dem mais am naa ku la gën a rafet dëgg am ndaw sa lañ matoo jikkoom la na ci biir est-ce que nit ku baax boo ko takkee tamit ba ci biir nga xam ne maanaam adduna moom nit nit boo tiitee da ngay dese ak sa fit mais boo meree nga dese ak sa xel maanaam xel moom ngay demee mooy tax yow mergi gi di lu yóbbee yenn yi. Mhm. parce que bu deen yow da nga am ñoo xam ne nobel gi sax mooy takk ñi moo tax ñi takk. Mhm. kii fañ mer maanaam dañuy nopp kii dem nopp goo xam ne léegi dañ koy wan ni yow rek la mais bu tey ji bu mer gi jeexee rek nobel gi jeex. loolu la des fois kii nekk ci danger di nekk victime mooy ki ñuy takk yenn saa yi. parce que moom day ñëw rek fàttal ma foofu foofu la fay toogee mais bu boroom ñëwee rek moom day puus mhm. wala mën nañ dem ba nekk ñaari jigéen ci kër gi mais moom day sant nobuñu ko mhm. mhm. parce que ci condition ak circonstance yi nga ko takkee bu ki demoon bu ñëwee rek wala mer ga jeex rek dangay ngay sentir ni waa ji nakate ki mu njëkk a am kooku mooy seytaaneem kooku la bëgg léegi loolu tax des fois jabaru faj mer dangereux nekkul sax ci ki takk wala kin fekk si mais kin takk des fois day nekk victime ci situation boo xam ne maanaam ñu dugal ko ci marché boo xam ne moom comprendre li xew am na ñoo xam ne dañ koy dem ba def yor benn néeg ak benn lal takk jawaru fermel dugal ko fa dugal ko fa bu kee ñëwaatee situation maanaam ana sama néeg ñul ko sa néeg am na ah, oh. am na maa la mag kay maa la mag kay gi fekk na gis naa lu ne waa ji dafa am dafa dafa sëyeeg eh. sëyeeg aaw bi lu eh. yàgg dafa sëy dafa sëy ndaw si non loolu man sama bët moom xam ay bu ñu doon xeex sax man maa àtte mu may seetaan bu baax waaj dafa am jabar dafa am jabar sëy moom am moom ñaari doom ñaa ngi dégg commence am ay problème yu sew rek xam nga sëyu xale lañ nag ñu am problème am problème ndaw si dem ñibbi bi mu ñibbee waa ji takk keneen andi bi mu takkee keneen andi pour wala ne waa ji kee la nopp bi mu jubawaat ak ndaw si daf na ñaara bi génnal néeg bi kee day ñëwaat. waaw <laughs> ah, jabaru faj na. waaw léegi nag léegi nag li problème mooy yorul lu fay ñaari nag yorul dara. léegi ñaareel dafa obligé delluwaat dëkk ba imagine toi lim dugal. léegi kan mooy aaw bi kan mooy ñaareelu foofu. aaw bi moo ñëwaat. léegi aaw bi la bëgg ka demoon ka demoon. Hmm. kooku la bëgg kookoo ñëwaat jëlaat place am. Hmm. léegi ki mujjee tax mënatu ko fayal néeg kooku xam nga kon bëgguñ ko kooku la sànniwaat mu demaat dëkk ba. Mm-hmm. Oh. maanaam kooku sëy bi yi neexatul parce que am na sëy am na jigéen ñoo xam ne jigéen jigéenee garabam aussi am na jigéen ñoo xam ne ñi ngi commencé di góorgóorlu ak di baax ci bu leen utalee keneen non am na ñoo xam ne mm-hmm. kim li ki wax déggul ma nee na aaw bi mu ñëwaatee jamono it sëy bi da ko poñe da koo poñe kon kooku mer gi mu doon faj baax na de yenn saa yi. pour mu dem ah, dëkk ba xool ndaw si sax problème léegi man la victime bi mooy ñaareel bi rek man laa la dem ne ki nangu moom ñu defee ko faj mer. waaw ah, mais jigéen tamit. di ko def loolu di xeexee ko ba. te lay leer na kii ñaareel doon jigéen ñi ci nekk victime bari na de. Ah, dafa doon utiliser góor bu ko def tamit yaa ngi def nekk lu baax waaw. vraiment mënoo jël nit Euh, mu kii nga fajee ko sa mer. après kële ñëwaat nga jëlaat ko sànni ko. mel ni comme si loolu sa pas bien. boo ci amee moom doom nan ah, ngay demee am na yoo xam ne dafa ci góor ñi tamit aussi. dañuy wax ni que ñun ñun jigéen chaque jour ñu victime victime mais tamit man ci sa ci ki nga xam ne joxe nga ko exemple euh, sa jëkkër mun naa ñëw ci yow à tout moment. Mm-hmm. Ah, sérieusement te yow nit koo xam ne dafa bàyyi lépp. Mm. branlé ñëw ci yow jënd dibi yu bari ñëw pour b la nga ñëw nga naan ko lu tax li tax nga li tax nga woo loolu yëfu yabaate la. loolu ak eh? yëfu yabaate la lu mu jënd dibi. dibi ju bari la jënd ndeysaan dibi ju bari ñëw pour bëggal sa jabar nga naan ko yow li tax nga ko jabar naa xam ne kii ah, xam nga non non non c'est-à-dire ak ak ak lu mën a xew. parce que yow bu bett la moom du jënd comme yow comme yow comme yow ba pare kii amal may ma wala imaginer ba pare loolu am mu ñaan ko baat dem yoonam dem yoo fas dem yoonam imaginer tamit jabar boobu moom muusu léegi benn man man sama jàngal foofu pour man jabar ji mun na am jubul. Mm. parce que ana xar mi ana xar mi. jubul nga bàyyi nga bàyyi buum bi. Mm-hmm. parce que am na ci loo xam ne tey jii ah, mu ngi mel na ne ñëpp toog kenn ñëpp toog kenn déggul dara nga naan am na lu fiy xeeñ. imaginer tey sax nit ñi bu nu muusee dañuy dem xool yow lan mooy xeeñ ci yow dèjà. Mm. dëgg la parce que xeeñul kenn. mais comme moom moo lii beneen dama lay jox beneen exemple pour man dafa manque éducation. dëgg la benn sa boroom kër la branle na ñëw bu njëkk mooy. mooy ah fàttali benn waaye defoon parfum xeeñu kenn bu yaakaar lii kay ku kay keeñ. waaw <laughs> gaa yi <laughs> yi bu la nii moom mënut a ñàkk ah <laughs> mënut a ñàkk benn waa ji mun na am dafa feebar. Mhm. bu yegg see nga ne ko ah, mbaa jàmm la. lan la wànq di dox noor heure bi lu xew déjà mu expliqué la bu njëkk mooy jox ndox mu naan mhm. même moom bu indaalu wu noonu lekk pour man jabar ji war na mën a lijjanti lekk ci guddi gi pour man bu dee jigéen ji baax guddi gi moom war na lijjanti sax li jëkkër ji war a reeree bala ñuy tëdd léegi nag bu ñu xëyee la ñuy lijjanti ñu lijjanti ko pour man dafa am jabar ju manque éducation mais su jabar ju jubul mais Oma hmm. imaginez ñi nga xam dañoo am appartement am seen ñaar moom muy am caabi imaginez hmm. la fa man de wax dëgg yàlla man bàyyi man man damaa rus ki nit ñëw góor de yëglu moom war na moom góor de yëglu aussi ah, déedéet nag déedéet nag bu dee jabar bi déedéet mais yëglu baax na am saa yëglu baax baax ne mais buñ la bettee wóor jox parce que li xew yëpp ba conséquence bu yëglu woon léeg-léeg yëglu baax da kaaren saa nga ñëw sax mën nga tombeek situation boo xam ne dara xewul mais ci saa si nga def ay toj-toj yoo xam ne fekk dara amul fekk ne sax du dara moo tax gis nga yëglu dafa diine lu mu la sant rek parce que kaaren saa yi mën nga nag saa sàcc yooyu neex na ma jékki-jékki ni salaamaaleykum jékki-jékki rek ñëw te te tàggu la fekk la nga am noo xam ne mel nga ko loolu dal neex na neex na man de neex na ma. waaw de ça va. waaw balaa nga yóbbu affaire bi fu mu yeggul. mooy yow dem yow sa débat yow dafay ëpp. ah mais yow tamit. waaw <laughs> ah, doy na sa jëkkër ni ñëw naa indi naa dibi yow nga war a bëggal mu lekk ba suur <laughs> nga ne ko maa ngi. doy na doy na ah, yow. jëlal ah, sa tem mais mais mais tamit euh, Omar ci li mu wax sànq ni ma li ma ci déggee mooy sëy ñu baal ma nag ñu ne ci ah jeex na. waaw ñëw la kii li muy nekk di def nii. moo ma jaaxal moo ma dama jeex dafa jeex. déedéet nee na moom mooy. waaw kon damaa gis ngay def nii boobu ba léegi rek nii ngay def. da ngay wax rek yow ko bàyyi ñu mën ak moom. am na nii ngi départ fi ne nii te départ. fi ne nii codé xam nga. non mais dama xam fu ñu lu. ko codé la maanaam. waaw damaa gis nii rek. dégg nga maam. Eh. Euh, ñu baal ma ñu ne ci appartement yi. waxuma ne ku ne ci appartement baaxoo mais dama ne sëy bu njëkk bi muy nekk ci famille bi. ca kër ya problème yii. Euh, muy wax amul woon. Ah, parce que mais bi problème bi amee mooy ba nga jëlee nit te ko ci appartement di ko bett. Ah, muy kaas kon mooy boobu la problème am mais bi ngay nekk ak yaayam di nekk ak ay rakkam ak i baayam. Mm. problème du am. mais tamit bu ñu la bettee. wax dëgg yàlla bu ñu la bettee ak position bu ñu la mën a fekk nag. Mm. wax dëgg yàlla moom yàlla nag nee na nag euh, soxna yi seen i. tool kër yi sax kër yi sax daan nañ am problème parce que tëdd ci basag yi ngonal yi bërëngu yeeg yooyu yëpp <laughs> xam nga ngoonali nag dafa neex. lii ngoon alaaj. xam nga ngoon alaaj foo jógee loo jógee ci appartement yi ràmba ja basang. kii de am na fu sama xel dem de la xaar ma la xaar may woon la xaar may <laughs> woon. Euh, foo jógee ci appartement yi ràmba ja basang. xam nga ngoon la mooy jël matelas yi aj ko ci kaw. Ah. toog fu ko macha allah ku ne ku ne tëdd nii. wóorul. mooy ah, wóorul. il faut régler tëdd gi. tëdd tëraay gi. maanaam ngoon la wóorul. yàlla bu ñu plein air. xaar xaar mbay nee na kaay ma leeral la ko. waaw ah. nee na yàkkataan gi jógewu xale yi yuuxootul. <laughs> nee na. yàkkataan gi. jógewu fi xale xale yi yuuxootul. <laughs> dëgg la dëgg la waaw tëjël foofu nag. <laughs> di na loolu macha allah. nekkoon li nga xam moom di seen école jeune école des jeunes mariés di wax rek jéeg ji nga xam ne ñu ngi koy def nañ ko bàyyi ndax nag day da lay manqué loo ba pare yaay takkuloo sa borom kër ñaareel maanaam yaay andi sa bopp wujju kon su kaambay lii moo nekkoon seen rubrique école des jeunes da di jox dig daje ba àllarba incha allah ci yeneen thème